Fatma Thiam noonu la demee jóge naa Yoff dugg si naa Colobane fekk si fi ndaanaan bi doomu Bawol bi doomu tubaatul bi Mor Kankang musul dégg muñal xale bu am avenir làmb am ci moom yaakaar moom laa seet si tey Colobane bi waxtaan ak moom ci lu yaatu diggante ak caatu ngéwél combat bi taxawoon na caatu ngéwél deloon na avance bi caatu ngéwél wax na waaye olof Njaay nee na benn lay du pàkk caatu ngéwél wax na Mor Kankang day wax ku fóotal mbëtt roccil bar fekk nañ fi Balla Balla bu Mor Kankang Balla bu Colobane di jàppale mbëri Colobane yi di jàppale Mor Kankang lépp Mor Kang Kang Balla moom moo ko yor bàyyi ji la caw waaye da mooy toog ñu dugg ñu xool Mor Kang doomu bool bi waxtaan moom ci làmb doon dem farioole ñaalo gay naa ko daan jëli sama champion wonaa la wonaa la yaay way la mbargal yaay bu guddee dee fooy cham ñu ngi fi ci koloban fekk fi doomu doomu koloban bi doomu doomu Bawol bi ñi koy wax Mor Kankang ñi nan ko bébé lakkale dem demoon naa yoo seeti caatu ngéwél gi wax na nak waye ben lay olof njaay du lay pak la olof njaay wax de doomu Bawol bang ni musul deg mu ñeul kii mo mo doon sàlloo doomu Bawol baang ni Mor Kankang mbokum nday ci Star doomu nday Baye jili doomu nday Balla doomu Bawol bi Mor ma lay di la xaadim euh, fay naa la ginnaaw ma sant yàlla julli si yonent bi di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Abdou Karim Mbacke borom makaarimal axlaa bu baax a baax a baax a baax xaadim euh, li may njëkk a wax maa ngi jaale Jules Baldé Junior ak Boy Lo waaw yal na leen yal na suuf sedd seen kaw yàlla xaral leen na ya gën a kawe waaw ak yaay Gaston maa ngi koy euh, tamit yàlla na suuf sedd si kawam waaw Boy Lo tamit yàlla na suuf sedd si kawam waaw Mor Kanka mu ngi nii rek doon xale topp ci ginnaaw magam ak tamit ak ginnaaw kilifaam waaw maa ngi topp ci ñoom ginnaaw Thiaw Star ak ñoom Tonnerre 2 ak ñoom Njaaxumin ñoo ngi daal la topp seen ginnaaw. turu Mor Kanka bi fan la jógee. turu Mor Kanka kooku benn paa moom ma ko tuddee. dégg naa ci nga xale yi naan la bébé lakkale te see naa gis ni bind ci bébé lakkale ñaari tur la la. waaw bébé lakkale boobu noonu kooku noonu ko reefe woon tuddee tuddee woon ko sama bopp waaye bi ma ñëwee ba si arène bi dama xam ne Mor euh, bébé ji moom gëmna né gëmna day xaar quoi baan mu jël Mor Kankang ji Mor Kankang ji dox. Mor Kankang lu ko waral Mor Kankang Mor nga tuddu wala Kankang lan moy Kankang. waaw Mor Kankang mom Mor Kankang rek. Kankang mo la. waaw Kankang aw sant la Kankang. am na ñu sant Kankang. waaw am na ñu sant Kankang. man loolu musuma ko dégg musuma ko gis. am na ñu sant Kankang. nga dugg ci lamb ji nga ñew ci lamb ji kañ nga dugg ci lamb ma ngi dugg 2017. ki Dakar wala. waaw Dakar. bawal. bawal daanaka ay deux mille deux mille douze ay mille douze laa dugg bawal. di Mbapat nekk ci àll bi di Mbapat di nekk ci àll bi di bëre ba yàlla def ma ñëw stade. sa Mbapat nan la demee. waaw sama Mbapat euh, daanaka samay làmb yu mu tëggal foofu yëpp ay bëre dóor la nag man daanaka Mbapat yi ay Mbapat euh, Bambey laa doon dem waaye làmb yam fa am yëpp bëre dóor la maa ngi fa am neuf combats. neuf victoire. mosoo laal suuf. billaay wallaahi mosuma laal suuf foofu. dégg naa yaa carrière daje ngeen. daje nanu. sama mbokk la sama mbokk la daje nanu. dégg naa ko dóor mu wàcc. waa loolu moom loolu moo xoolal <laughs> bàyyi noonu rek. ah ma def ci code. waa def ci code. léegi nga jóge Bawol kañ nga ñëwoon Dakar fii. 2017. bi ma jógee Bawol 2017 nga soo a ñëw Dakar. noon non boobu 2000 ay 2002 boobu moo ngi moom ngi maa ngi fekk fii. 2002 waaw moo fekk fii. kon France da ko doon waaw seetaan naa ko. waaw waaw. doon xale. doon xale. di yeewu fajar. di yeewu fajar boobu Wow. ndar gu ndaw la. ndar gu ndaw waaw. léegi nga Wow, 2017 ak ci làmb ji Dakar mbapat nga. waaw Dakar mbapat naa fi fii def naa fi six sa suuf. sama suuf terrain Colobane. Coro Bey boobu moom moo tëgg combat yi. Coro Bey. xam naa Coro. waaw moo tëgg sama combat yooyu yëpp. Coro Coro bu Coro bu Bawol. waaw Coro Bey. xam naa ko Coro bu góor a bési moo ko tëgg. di doon jigéen gu baax nag. daanaka bu ma su ma demee si làmb daanaka yàlla ak moom a tax. Coro Coro. tëggal na ma 2500 tëggal na ma 3500 tëggal na ma junni. waaw. Coro ma ngay bëgg sama jigéen la sama xar la sama dom la sax papa la may woyé <laughs> mo ngi noonu Coro ko baax la. léegi nga ñëw ci Ligue Afrique Frapp nak dóoral ma dóor. wa dóoral ma dóoral ma dóor fofu non ma ngi ci am 8 combat ce premier combat. sama premier combat ma ngi ci bëre carrière. fi fi wa ma ngi ci bëri nee bu ko ci bol nee lolu Allah àll ba la reefan ko ah. reefan Sénégal la mu ne dédé amul problème kon légui bëre fi Dakar Ibomar wa bëre Dakar ma ngi bëre Ousou Ndiaye. premier combat. non premier combat ma ngi bëre Issa Tine fii Iba Mar. waaw Iba Mar xam naa ne fàttaliku leen ko. Euh, ma xool mbay guy gi daa mel ne moo ko bëree. Issa su ma jumul caaroy la nekk. waaw caaroy la nekk. mooy caaroy waaw nga daan ko. ma daan ko jóge fa bëri Morlam. Yoof. Yoof. daan ko. bëriwaat fa bu euh, Balla Gaye daan ko. jógewaat fa. Euh, Lozo daan ko. spécial. waaw. yaa ngi ci ñaata combat kon. ci huit combat. non caatu ngéwél nee na nga wàññi ma six la. non amul problème waa léegi six la. man maa ngi sama yoon caat wax rek daf ma yóbbante. non caat moom man loolu man mënu mu cee wax ak moom. c'est moom ci émission bi c'est que moom dafa jël sama komba a ah, dem ba ci digg bi. a ah, mënatu la mu dem ba xaw. naa ñëw non bul ma bul yàq bul yàq mi sama lanc bul ko bul ko bul ko seex dinaa ci ñëw léegi euh, Oussodou ñu ne ma mbër yu daan euh, mor kii lañ ci xam Oussodou te nee na ma sax Oussodou da xewi jon Kara loolu la mu wax nee na ma dal ñaar ñoo nga dan ñun xawa xam wa loolu man man man mi sax moom ciatu ngeewal billahi wallahi la ginal ni ma jël combat am la koy doog a xamee waaye kaw ciatu caatu ngéwal daanaka lamb ji xam nako lamb xam nako lamb xam nako mom mom bu demee ne Mor Kanka lamb xamuko mom day wax lu ko neex rek bu dee beneen Mor Kanka làmb xamu ko day wax lu ko neex. léegi combat bi kan moo ko tëggoon ba ba mu yàqu kan moo ko tëgg gën la wooyee loolu la wax yow. waaw man kenn woowagu ma nag. combat bi kenn woowu la ci. man jàpp ma ne yàqu na de man kenn woowagu ma. combat bi moom yàqu na dutul amati nag foo ne. waaw xanaa wàlla waxu la ca star na la wax ni mu demee. waaw ñooñu waxaguñ ma dara man sama promoteur lay lay laay déglu rek. combat bi amatul nee na du bëre yow du sa moroom waa loolu amul problème. garaawul wiiri wiiri jaari ndaari wir wiiri bi gul jaari ndaare legi mom waaw su beuri wut ak man rek moy lolou Dakar mom du sat ñaari yoon dama la bëgg a xamal ni bu yeboo mu ñew ñu bëre bala ñuy gëna dem ci kanam bu ñu dem ba ci kanam billahi wallahi liggéey dootuma ko dootuma ko sax xol legi combat bi mom bim bim ko bi ko jëlé gisé ngeen ci digënté bi def ngeen ay face à face yoon mom gisé wuñu gisé wuñu dé ci groupe rek ñuy dégënté mom ngay amna groupe bu ngeen bokk sax da dugg rek nga kité daw xamal xamal lan la yewit it. waaw xam li tax ma kité daw ndax ñu bari dañ ne Mor dafa yaru dafa baax tamit mooy loolu keroog am nu mu demee ñu ne Mor war ñu koy dégg si war ñu koy dégg si te man mosuma bokk groupe moo tax ma quitté wu ma sax chaque jour maa ngi déglu vocal yi. quitté hmm. wu ma de. Ah, da di Mor moo mënta wax rek si groupe. léegi combat bi yàqu na moom nee na du bëre ak yow. loolu yëg nga ko n'est-ce pas. waaw combat bi wul man sama promoteur waxaguma dara. promoteur waxu la combat bi yàqu billaay combat bi waxaguma waxaguma dara man avance am laa lekk yëgaguma. moom nee na bëreetul moom mooy bëre nee na bëreewut ak yow. moom su bëreewut ak man du bëre. moom nee na seega ñi koy ñi koy jàppale ak ñi koy sotti galaan ñëpp nee nañ ko doo bëreeg Mor moom loolu wax la rek. su bëreewut ak bilaay su bëreewut ak man bu ko neexee nan naan bu ko neexee mu woo ma téléphone mu ñëw buntu këram bëreeg moom. waaw moom bu ngeen bëree ci kër moom. lam bu ngeen bëree Iba Mar arène nationale ngeen bëree. non man damaa bëgg sax lam ji ñu leeral ko buntu këram mënul nekk. waaw ah, mënul nekk kon yaa kon baax na laajal ma ko loolu rek moom tapet la moom dama bëgg mbayaar gi muy woote moom nekkul si moom. non kooku di caatu ngéwél di géwél ngaan lu ko def waaw moom géwél la man maa ngi nii mënu ma génn si géwél ndax man ay géwél la ma yar. maa ko dàq fecc maa ko dàq bëre. waaye Thiaw Star gis ci émission bi Thiaw Star noppil. maa ko dàq maa ko dàq fecc maa ko dàq bëre man ay géwél la ma yar xanaa ma ne Baara mbay bii ñëw ko mën a dëgg ñëwaguñu stade mooy boobu Baara Mbaye bi ngay fi. barke Serigne Fallou laa la yéen ñi ko mën a tëgg billaahi wallaahi ñoo noonu ay bool lañ koy tëggee. bool amul ci lamb. te si combat bi combat bi laa ko war na wane. combat bi moom doo ko ci wane ndax combat bi du am. waaw yàlla baax na. yàlla baax na combat bi du am. bu ma wooyee tey na ma combat bi yàqu na. ma ne ko xoolal ma benn avance man sax li may liggéey wallaahi xasim laa liggéey du pour caatu ngéwël. pour kan la man damaa liggéey ñi nekk sama kanam ñi nga xamante ne nii mooy loolu. apa part Thiatou Ngéwél kan lan lay jox à part Thiatou no non dina am non yaa Thiatou Ngéwél moom du ngeen bëri dinam combat bi xaadim untuk ma la waxee dina am dina am moom moom su ak man du du kon bu yeboo ñëw ñu bëre yore yaa na ci affaire yi du mbayaar sax non mbayaar la ban billahi wallahi billahi wallahi géel huit ko tu bisaab la du mbayaar lan mooy loolu. su ma la ko waxee si loolu war ngoo xam olof yi dégg nañ ko. moom nee na Sega mënul daan Fils de Zalo te yaa ngi Fils ngeen bokk igri. mu daan ko jël te indi bi mu la man Fils de Zalo sama mag la sama lépp la. yaa ko indi bi mu bëreeg moom daanaka moom a aku si làmb ini ko indi. waaye li nekk ci man man gëm naa nekkul ci kenn man dama dama la bëgg a ni fasu te man fasu kan moo nekk ci yow lu nekkul ci kenn. man façon naaru góor laa man damaa gëm li def man damaa gëm li def tar bi wuusi ànd ak samay mag daan dem ay mbapat ñu ko jël. kon am na loo xamante ni du ma sax du ma si naat di nekk di wax na ñëw ñu bëre suñu bëre wu day gën a metti si kanam moom lu muy daw. non dawul c'est que nee na gars yi xamuñu la. <laughs> lekk avance jàmbur pare naa xamuñu ma. te xaalis bi kat delloo gu wala ngeen woo Bekaay Mbaye na ndax xam ngeen Mor Kanka wala ngeen wo mustapha Gueye amateuru lamb Dakar moo la top 5 wala kon wo len man sama lamb yëpp top 5 la man jël buma dan top 5 la to lol lay ñaan yalla mu gëna avancer sa kanam man la amateur yi so fété mu neex so bëre mu neex promoteur yëpp ma xam mais dañoo gis sa combat yi nga bëre yëpp ben promoteur mu tëgg muy jey sa relation ak jey la la sama ra koku sama nijaay la koku sama nijaay la dama bëggal boppam koku lu mu am rek man mako gënal billahi wallahi li gël nee na yow lamb taxut ñu mboko ay mboko lañu te dama bokk bawol waaw dama bëgg nga lek ay millions ci lamb ji ma ngi jéglu nak bu wër ndax sama coach la war na muy maxi mom moma yor di ma tarbiwu ak dige ak ñom cheikh ñom gaay yépp mafia maxi bép ma ngi leen sant di leen gëreum aw seen fay sax suuma dikké defal ni defal na lan may wax di sama entrepreneur Père Bada mang ko sant bu wer mais di nga sant dama gis bo ci lamb fugu bi ngay ñewé fecc bi kut ku taxaw sa kërëm kut ka kut nga na yak man fugu bo ngay pour lan la. koku deret la man suma duggé ci si làmb damay tëx damay gumba. man té dama gis bo duggé ci lamb doto faale dara. koku dotuma dotuma dégg ñu bari na da nan Mor day xëptalu Mor day def li Mor def la waye Mor defut dara Mor amna lu muy jël sax deret la koku sama deret la sama papa da daan kon da ngaa doonu mbër man damaa doonu mbër yi damaa juddoo billaay wallaahi liggéeyal xaalisu mbër xaalisu la lañ ma ngéntee billaay wallaahi loolu mbër yi koy wax nag léegi bari na ko wax mu ne xaalisu làmb xanaa ñëpp xaalisu làmb man barke Seydina Mouhamad laa sama papa daa bëre billaay wallaahi liggéeyal sa boobu ñan la bokkal génération bi doon ñu mu bokkal génération <laughs> sama papa booy xool euh, ñoom ñoom Falaye Balde waaw yàlla yàlla yërëm waaw yàlla na ko yàlla yërëm kooku bokk naa ak ñoom sama papa mi muy bëre boobu lambu saket eh, eh, eh, liwu saket mo am barrière saket mo am waaw ya, ambiance bi ngay duggé bo duggé ambiance bi da ngay ambiance ba kéro ngay bëre. non ambiance bi xamna tax may ambiance ndax li li sama ginaaw dama koy liggéey di ko tarbiwu motax li top sama ginaaw force ma yëngal amateur yi tamit bëgguma bëggul ma seen bop ba nga xamanteni nii su ma duggee si làmb xaar. pour ma yëngal leen seddal seen xol te noonu may seddal seen xol ñoom noonu noonu luy bëgg ma am ndam te yàlla na moom daal yàlla na ndam yi gën a yokk sept combats wala six combats six loo si wax rek baax na. man du nekkul maay en tout cas daal man huit laa jàpp. man sama lamb yëpp barke Serigne Fallou laa la génne lamb bëri dóor yi ma bëri yëpp Modou Mbaye ko ñëw reporté. barke Seexul Xaddim laa la génne lamb carrière lamb fët fët. billahi wallahi la jël Modou Mbaye moo ko euh, reporté. loolu dëgg la mais licence laa ko bëree barke Seexul Xadim licence laa ko bëree. la. barke Seye ma ne ko Réfane Sénégal la bokk mu ne ma non. mba euh, lamb yooyu CNC nekkul guy geeg njaaxum. guy geeg njaaxum fan lañ ko bëree. guy geeg buy lim ay ñim daan dama ci dégg mu tudd njaaxum njaaxum ko bëree foofu noonu. ngoogum googu la ko bëree ngoogum googu licence ngay bëree. billahi wallahi waaye nag bu neexee ñu wax moom moo ngi noonu Kan kan? ñaari defet kan ak waaw defet yi euh, Ada Fass ak kan ak Fatou euh, Jigo Jigo Jigo la waaw ak Jigo waaw mo ngi nonu may wax muy jema bañ mom na ñew ñu bëre limi wax Dakar lok fi Camara nga wax ak mom limi wax yow chat yow dama la koy wax yow sa làmmañ dafa reuy ñewal ñu bëre nee nga géwal nga man doomu géwal pire la waaw maa la gën doomu géwal pire ñewal ñu bo boo wu tamit mo déwén day metti ci yow boy bu rek tan nak te nag jàppal nag fu ma la fekk fu nu daje si ndakaaru dinañu xeex. Eh, bu xeex xeex bu xeex metti man ak moom. sama avance la jël. man sama avance la jël baax na sama avance la jël kon na ñëw ñu bëre. non bul xeex moom nag. xaadim dama bëgg a xamal ne man dama nekk xale ba nga xamante ne nii mooy loolu. billaahi laal gi làmb rek laay dund xaadim. barki sëñ Abdul Karim Mbacke laa ji lamb rek lay dund. mais bul xeex ak caatu ngéwél nag. ba su ma toogee jour de mu entraînement sax day mel ni dama dof. boo waxee lii dalay gën a mere nag de dalaa mere de. boo waxee lii dalay gën a mere. billaay ay xeex ak yow ci mbedd. billaay wallaahi maa ko gën a mere. maa ko gën a mere fop ndax dama jël daa jël sama avance ba pare te mu deful yëfu ñëpp go kay xex gënal kaay lek man gis na ko muy xex ak ci istat te kenn fay ko <laughs> man ma tek sama bëtt man muy xex ak mbër te bëri wula koku de. man man man man man ndongo ndongo daara bu tëx dama damaa xeex xoolal li lii xotu biteel la dama xex ba tarbi wuko wu mais yow xex ak caatu ngeul yow da nga ñëmé loolu yow. caatu ngeul barki sayyidina muhammad combat bi billahi wallahi la génn dama da da dañ see nar kortante dóor mu daanu laa ko laa ko naroon def barke Seexul Xaddim laa la gideel daa mën a bëreeg moom xam nga dañ ne moor rek la wallaahi mën naa ko bàyyi mu egg ma fu sori wallaahi ma doog a bëreeg moom barke seexul xadim laa liggéeyal li may tarbiwu salaam di ko bëri si làmb wallaahi laa liggéeyal bëree guma ko estat lii ngay wax ni day tax mu gisul bëree gis nga gis nga loolu muy wax noonu gis nga mbër bu xasee lekk avance su jàmbur mu doon sa morom na gore te yàlla tax Fallou Ndiaye da koo bëgg ba nga xamanteni ni moy lolu kon kon kon lamb ju neex lay yak ku ni wax Ada Fass di ko wax Tafa Mbër di ko wax Mor Kankang spécial caatu ngéwël bobu combat dafa dafa wara neexon bu mu yak combat fallu Ndiaye bi fallu Ndiaye sama papa la sama lepp la. moom it sama papa waaw ñun ay bawal bawal lañu. mom mu ñew dugg ci bawal bawal yi bawal bawal di jappalé kon na goré da mom neena sax combat Ada munul beure Ada face ay. Ada Fass Ada Fass da koo na goré neena duko beurel special waaw mom wax la rek. bu bëggee ñu bëre grand combat man ak moom bu bëggee Fallou Ndiaye yàq ba boobu def ko grand combat. moom su ko bëggee. moom Caatu Ngéwél ngay waxal de. <laughs> bokkul la fi jaaroon. façon naaru góor ngay waxal. buy buy daw du séntu ginnaawam barke Serigne Fallou laa la ginal. te dégg naa ñaan labbali fas taxul fas a raw. moo nga noonu nag. fas yor sama xiir di labbali rek. billaay sax parfois nga indi xiir booy ñëw làmb ja <laughs> euh, non non. dégg naa ñaan làbbali fas taxul fasaraw. yor sama xiir di làbbali rek. kese. da nga fas yéene woon làbbali caatu ngéwél far cat dugg ca lay sànni. caatu ngéwél xamoo sax bëri gu ma ak moom wax baaxul waaye dama bëgg a xam ne na gore. xaalisu Fallou Ndiaye la lekk. Fallou Ndiaye temps yi moom cat ak topp moom. Fallou Ndiaye bu demee combat yu mu tëgg mu am ay problème Fallou Ndiaye bu demee ba koy neexal. am na lu tax waaye gis nga dama bëgg xam bu bëriwut ak Fallou Ndiaye billaahi billaahi wala su bëriwut ak Fallou Ndiaye su bëriwut ak Fallou Ndiaye gëmoo moom gore na seega moom nee ay ay ak ñi muy ñoo ne ko bul jël combat bi kon hmm. lan ma tax mu dem jëlee avance bi Séga xam naa dafa moom moo ko moo a xaaju jëlee ko boobu pour moom nee na corona bi la bëggoon bu fekkoon ne corona bi amul mu jël la këlamtikoo la xoole na ay magam da danoo nekk Europe lan moo taxut ay magam dem jox ko nan ko jox xaalis ay magam nan ko jox xaalis. moom nee na dumbal dina jox bëgg a xamal ne man yoruma dërëm maa ngi nii su ma xëyee. barke Sëñ Fall gi dama dem tarbiwu ko su ma amee téeméer ñëw jën ko reer naan ndox tëdd. sa ngor damay kolo kolo ndékki ndékki dama koy kolo barke borom Touba billaahi wallaahi jeex na pëng lépp fay naa ko saal lekk naa ko billaahi wallaahi laa la naa fi ne yoruma dërëm samay mag laa neel ak samay grand frère ak sama xarit sama doomu nday Thiaw Star ay ñoom tonnerre de ñoom lat koo ñaa ñoom Thiaw Star daa xew bu ko trompeur trompeur koy bégee Thiaw Star daa xew bu fi turu Star waaw maa ngi koy bégee waaw nag di sant sama sama coach bu baax Maxi si ma ko fàtte kooku sama coach la waaw di wax ne maa ngi sant waa Rimaaw bàyyiwuma rimaaw jëpp ak juróom-ñaari njëfun gépp maa ngi leen di sant di leen gërëm Touba Toul bàyyiwuma Réfan Ndereb ba boox bàyyiwuma Bambay Caajaay Fatick bàyyiwuma leen. loo koy mujjee wax caa loo koy mujjee wax lu mën a dégg ci noppam. waaw jilaas bàyyiwuma waa Paku Ferrailleur ñoom Talla Buraco ay ñoom Samat ay ñoom Pindiw ay ñoom ma ay ñoom Tafa Gumbala Tafa Gumbala maa ngi koy sant bu baax a baax. ak Baye Jili sama doomu ndey. bul ko fi tudd men maa ngi koy ah, sant borom Kolobane Sañse. borom Kolobane Sañse. ah ok. billahi wallahi dana ma moor xaaral ma sañsel la ma ne ko noo garaawut entraînement laa jëm baal ma sol lii. man de waxoon na dina ma sañsel mais gisaguma dara. de sant sama grand frère. Balla Balla Dia. ak ko sonn ci yenn saa yi nag damay juum. ba nga xamante ni yenn saa yi sax du ma ko mën a wax leen ndax dama koy rusa wax mu jàppe ko neneen waaye nag moom bu demee bu demee ba toog rek dina xalaat ne booy la. waaw maa ngi ko sant bu baax ndax euh, lii sax yëgu ko woon. billaahi waxuma ko woon yow yaa ko wax de waaye waxuma ko woon. moo yor waaw di sant mami di sant taa màggat ñoom mère Dieye ñoom ñëpp maa leen di sant. mais looy mujj wax caatu ngéwél pour mu dégg ko. waaw caatu ngéwél li ma koy mujj wax nee naa ko papa ngéwél na gore. na gore waay. gore ba dee moom xanaa doon xanaa lébu pire léboo ngi nii léboo ngi nii sax buy nappi barke Sëñ Fall day gore bu demee bu amee da koy sant yàlla bu amul tourné ngor gore damaa bëgg a xam goro la dëkk ngor ngore waaw na gore Mor Kang la moom nii moom xam nga rek. ambianceur maa ngi lay sant bu baax. man maa lay sant di sant sama grand frère bii. sama boy non waaw non grand frère la. yat ma ndax ndax xale boo koy dibalee da nga koy toppal ba mu xamul dara. man nag ñi nekk sama ginnaaw ak ñi may dooleel. dañoo topp sama ginnaaw bi nga xamante ne xaw ma dara ba léegi maa ngi ci. di sant waa koloban gépp nag ku si mel ni raas yi maa ngi koy sant ak per Mbaye Guèye maa ngi koy sant bu baax a baax booy Colobane yëpp. ca Colobane ja la waaw ma ngi leen sant bu baax a baax ak euh, salle de vente ñom soko bebe site bebe site sax laay wax site bu Mor Kankang ma ngi koy sant ay Alla jonne ablay Ndaw bay mag doomu Jalaaw sama doomu nday ma ngi koy sant bu baax a baax waaw doomu Jalaaw men deux ay ñom Tafa Njaan ay ñom mam góor ay ñom sal ciow ñom mam Cheikh ñom talassar ñom ñep ma ngi di port fay sama mère yoyu ma ngi leen di sant sama mère ay ñom xat ñoom Absa ñoom Njole ñoom ñëpp daal maa ngi leen sant ay ñoom Adama Awa Ela Sarr ak May maa ngi koy sant bu baax waaw ak Ndumbe saar maa ngi koy sant waaw Babacar Dadi ñoo ñëpp maa ngi leen di sant waa Port aw ma seen fay sama mag jibi nekk itali maa ngi koy sant bu baax di sant sama mag Njaga Tine maa ngi koy sant ak sama yaay sama yaay maa ngi koy sant bu baax ndax aw ma fayam luma wax nee ma moor lo am de ko bokk nit ñi bu yagge di nga am jàmm. loolu del yéen ñëpp jam di sam sama serigne serigne Abdou Karim mbake duma ko faté borom yalla fi yàgg te wér waaw mer ñaña ma ngi koy sant sama yaay la ñaña ma ngi koy sant bu baax waaw borom agni bi ma ngi koy sant bu baax baax moma jox ay jox lek waaw ay de port ay serigne Sall ay de port wa ay de port ma ngi leen di sant bu baax baax baax port waaw ak wa Fuuta bayuma len wa Fuuta. yow dinañ amar yeren jotaay dinañ gëna yaatalat bala ala sama mag bi nek xombal maa ngi koy sant bu baax. waaw di sant wa xombal gep maa ngi leen di sant gis na taxaway bi di sant mam magat bu baax a baax a baax baax di sant seigne mbacke sille maa ngi koy sant bu baax di sant Dame John bu baax wa salam wasalaam. sigil ma jox bala une minute bala bu Mor Kankang la demé won yarma ma Mor Kankang ngi ni ben lay Olof Ndiaye ben lay du pak dem seet naa caatu ngewel wax du beure joxu jotuñu ko avance dañ koo compal nee day delloo xaalis bi Mor Kang Kang dina bëre léegi tungu ne tungu ne du teew ñi natal Mor Kang wax na la ci kanam raw li bët corona bi na fi jógee dina am ak du am dina leer mais en tout cas loo ci mën a dégg daal combat bu neex la doon doon nag caatu ngiwal day ambiance day bëree Mor Kang Kang bu dugg see day ambiance day bëree loolu dafa neexoon warutoon yàqu caat garaawul man dinaa wax ak moom Mor dina bëre. may ma ñaar ñii waaye ma wax ak ñoom. ñan ñaar Ablaye Fall. kooku sama sama mag la daanaka njëfun pal la dëkk daanaka day sonn si man mook Omar ay ñoom Ablaye ay ñoom. ñaar nga waxoon. ñoom daal mooy loolu waa waa Tilène ak ñoom inter intermen. internet billaahi sama doomu ndey a ngi noonu Ablaye Fall nag aw ma fayam mook Omar ay ñoom Ablaye Cissé ay ñoom El Hadj aw ma seen fay. Baye Sall aw ma seen fay wasalaam. Baye Sall amul fayam ma ne aw ma tuuti ay Sarr papa Demba <laughs> le ménagère Magay sama papa Abdou Mbacke waaw waa parcelle ñambaas yàqul sër sama grand Mor. di bëggee sama grand Lamine Bara ci Alsantine kooku day sonn ci man fëgal la <laughs> borom jëy siti noonu la demee waaw waa groupe nay leer làmb ji maa leen bëggee bàyyi ji la Colobane Colobane sañse waaw du mën a ñàkk 753 91 05 ku bëgg lu mool demal ci moom. jeex na dañuy seet waat yeneen mbër waxtaan ak ñoom ci làmb yaat ma am amal jàmm.